ni moo di njiiti réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag jël na ndogal ci ñaareelu réunion conseil des ministres bi nga xam ne amal na ko ay mesures yaatoo yaatu ba tax na ba ci gën a fës mooy audit maanaam càmbaraat yoroon gi nga xam ne moom na nguur fi nekkoon yoroon waaye tamit fexe ba rapport yi nga xam ne moo tukkee ca corps de contrôle lu ci mel ni IGE Cour des comptes ak ñoom seen ñoom ñëpp ñu daal di fësal seen rapport fexe ba tegaat ko ci taabal ji waaye tam ñuy xaar ci li nga xam ne kat mooy yeneen i ndogal yoo xam ne moo nar a tukkee ci li nga xam mooy conseil des ministres waaye ñu gisee maanaam daal di fexe mu set wecc kon tamit fexe ba li nga xam ne mooy yorin gi maanaam état financier yi ak ci wàllum administration li nga xam ne daal moom lañ fi fekk ak ñi nga xam ne tamit ñoo yoroon yoroon gii waaye ñu bëri kat commencé tàmbali yi wax ndax gis nañ ne Sénégal yi loolee dafa mel dañ ko daal di yàkkamti taxamti ko goo xam ne kat lu bëri tukkee ci tasar xibaar yi nga xam ne la ñu bëgg rek mooy ay scandale ak révélation waaye tamit lu bëree bëri ñu ngi koy xaar maanaam askan wi fexe daal ba li nga xam ne kat mooy seen i koppar ca ya ndoxo ca yoron gi ndax baax naam yemb na waaye itam ci fàttali njiitu réew mi ki ci mel ni Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñoom ba lañ tabee ju nekk njiitu réew ñoom ku ci nekk rek dot na engagé xeex bu nga xam ne dañuy xool li nga xam ne mooy xeex wàllum ger ak yoron gi nga xam ne fan lañ toll waaye tam loolee France daal di xëddeen maa tax jurul dara kon li nga xam ne mooy ger bii ak li nga xam ne mooy yoron askan wi ci ban anam lañ ko yore ndax yem na loolee laaj bi samp ndax rapport yi nga xam ne moo bàyyi ko tugal ak ci bitim réew kon ñu bëri gis ne am na luy ñuul ci soow mi waaye tamit foo mu mujjee maanaam ci tiroir wala sax ci rondal kon ñu bëri gis ne kat lii nga xam ne daal moom la ba si Diomaye Faye yaakaar ne kat loolee mën na ko daal di saytu dana jur njariñ ñu bëri kat yaakaar ne daal war na mën a jur njariñ ndax ma ngay wooteeb slogan jub jubal ak jubbanti ñu bëri bëri yaakaar ne yàlla bu mu nekk naax saay wala sax naxee mbaay kon ñu bëri gis ne wàllum xeex gar loolu tamit ak yor la waaye fexe ba nit ñi nga xam ne ñoo amee compétence teg leen ca place yu wér te wóor loolee kat moo mën a doxal mu réew ndax réew moo xam ne kat saa bu ñu tooñee nit ñu fexe ba ko maslaa waaye itam daal di koy euh, nëpp nëppal gis nañ ne loolee moo fiy jeex ndax askan ci boppam ñoo soxla jàmm waaye tamit ku leen di wax dëgg.